Sunugal 24 gërëm ci seen teewaay euh, tey dañ fi daje di waxtaane ci mbiru petrol bi ak gaz bi dafa am benn enquête bu ñu ubbi senegal di ci woo ay nit di leen laaj bi ñu wooyee ñun dañu ne woowuñu la ndax dañ la jiiñ woowuñu la ndax dañu njort ne danga ci def loo ci warul def dañ la woo ngir nga seede liñ ci xam ndax fi nga jaar nekkoon fi secteur général ministère bu yore énergie bi dossier bi di tàmbali ak li nga fi nga jaar ci wàllu professionnel war nga ñu mun a wax loo xam ne lii leeral boo buggee nag wax ak ñun mën nga ànd ak sa avocat ma ne leen man mun naa wax ak yéen te du ma ànd ak avocat pour leeral leen li ma ci xam bi ñu waxee loolu ba pare ah ñu laaj ma mun nañ ko tënk ci ñeenti laaj benn bu njëkk bi mooy waaw secretaire général bi ñuy dégg moom lan mooy liggéeyam ci ministère lan la am comme pouvoir lan mooy yoonam ci contrat ak lan moo dul yoonam ma leeral ne secrétaire général ministère yoonam nekkul ci signer contrat signé contrat participé wul ci négociation amul benn pouvoir bu ko benn loi may pour mu dugal ci loxo li ciy liggéeyam mooy société bi nga xam ne mooy liggéenti affaire contrat yi muy Petrosen bu waxtaaneek ak ñi bëgg contrat yi ba pare dafay jël dossier bi jébbal ko ministère bi. ci loxo secrétaire général bi lay jaar bu jaaree nag mu jox ko ministre bi ne ko sa courrier ngi nii ministre bu ko xoolee nag. mun na ci bind ne léegi nag vérifier ma ndax procédure bi baax na wala defal lii wala defal laa wala sax mu signé ko directement delloo ko bu ko indee ñu defar décret bi yóbbu ko présidence pour mu approuver bu ko deful mu téye ko bii nag dossier bi bi mu yéegee wàccaatul donc amul benn instruction buñ ci jox wàccaatul parce que dafa mel ni autorité bëgguñu ko woon a moo tax deuxième bi ñu laaj ma yow lan moo ci sa sa sa sa sa dugal loxo ci wàll contrat bi kon nag leer na ma ne leen loi bi décret bi yépp aw ma ci benn pouvoir kon dugaluma ci sama loxo Franck Timis xaw ma ko mosuma dajeeg moom wax naa ko ko sax di ree dafa ma ne ndax xam nga Franck Timis ma ne ko man Timis waxtu julli laa ci xam te waxtu bu gaaw la da ngay gaaw julli jóge fa mu ree ba waaw man loolu laa xam ci timis waaw boobu boobu féete boor ñu ne ma léegi yow yow nag wax dëgg yàlla war nga ñu wax loo ci xam nag même bu fekkee amoo ci pouvoir binduloo ci signé woo ci doo wax ne xaw ma ci dara nag ma ne ko ah, am na lu ma ci xam nag lu tuuti li ma ci xam mooy man ci jamono jooju ñu ma laajee parce que bi directeur général Petrosen insisté pour ñu signer ko contrat euh, ce qui est normal dama ne waaw léegi yéen dossier bi foloon toll ñu ne ma yow yow mi yow mi ne loo ci xalaat ma ne la ah man de li ma ci xalaat leer na. loi 98 bi nga xam ne bii moom moo tënk naka la ñuy joxee blocu pétrole yi ah loi boobu bi ñu koy def baaxoon na lool parce que boobu kenn dugalatul xaalis. ci wutum pétrole parce que dafa seeroon te gars yi def ay recherche yu bare amuñu dara ñu ne léegi comme dëkk yi nekk Afrique yëpp ci même société yi la ñuy dem pour ñu ñëw seetal leen pétrole mu am benn genre concurrence boo xam ne Sénégal fi mu ci féete woon baaxul ñu ne léegi nañu def benn code bu gën a concurrentiel 98 nag ñu def code boobu daal di def jël ay mesures yu bare daal di supprimer bonus de signature daal di leen euh, jox délai bu gën a ngand daal di recouverte yi ngay am mais bu fekkee li nga am mënagoo ko jaay dañ lay may nga retenir ko pendant huit ans bu dee gaz la bu dee pétrole la pendant trois ans ñu def ci daal ay mesures yu bare yoo xam ne dafa facilité pour nit ñi dellusi mais en même temps recherche bi avancé ba xam ne dañu am genre portale bu ñuy def pour xam fan la gaz bi nekk da ngay gis trace boo gisee boo ñuy portale rek léegi moom la ñuy wax sismique 3D booy def contrat da ngay da ngay jënd ay kilomètres carrés da nga naan man jënd naa lu toll ci par exemple fii bloc bi bloc bu nekk Frank Timis dafa ne woon day jënd 2000 kilomètres carrés sismique 3D 2000 kilomètres carrés mu ngi jar 15 millions de dollars lii laa jël mais boo jëlee loolu aussi da ngay jël engagement ci première période de recherche bi ñaari atu njëkk yi da nga naan man dinaa xool fan la pétrole bi nekk. nga defaat deuxième période ñetti at la foofu li ñu lay laaj mooy nga gas teenu pétrole. teenu pétrole bi boo koy gas à peu près teenu pétrole 20 millions de dollars la moom ngay jël gase ko boo gasee exploité deuxième période bi nga gas pétrole. léegi nag bu alal ji ñëwee dañ koy séddoo waaye séddoo bi yow état Sénégal 10 pour cent ngay am bu dee téeméer la yow fukk ngay am ki gis pétrole bi am juróom-ñeent fukk. loolu nag mooy séddale boo xam ne bii niñ koy defee li ko daan justifier mooy que comme yow amuloo alal xamuloo li nga am ki ko génne moom moo la ci ëppale fuuf man ma ne comme technique bi avancé na te partage boobu baaxul li ñu waroon def mooy ñu certifier suñu réserve ñu jéem a fexe ut xaalis ba xam li ñu am léegi bu ñuy négocier yow ñu ne la waa ñun dañuy négocier waaye lii la ñu am lii la ñu am lii la am kon nag jarul woon ñu yàkkamti di signer quoi que ce soit parce que ñëpp xam nañ ne Sénégal am na pétrole depuis longtemps ñëpp a ko xam demoon na commencé nañu recherche yi bu yàgg même temps wu colonial amoon na fi recherche ba ñu créé fi sax ñoom ay société bi ñu nee ba sonn ci recherche yi 1971 la ñu ne nañu arrêté recherche yi parce que soo demee ci offshore bi boo déggee ñuy wax offshore mooy li nekk biir géej boo déggee onshore mooy li nekk ci jéeri bi offshore bi pour nga gisaan pétrole bi il faut nga dem ba 2000 mètres alors que doole bi ñu amoon 200 mètres la mënoon yem donc amuñu woon kàttan bi loolu moo doon justifier ñu def code boo xam ne bii da ngay fexe daal ba sa pétrole génn waaye yow boo ci amee sa sagaru 10 pour cent moom mu am 90 pour cent man ma ne leen conditions yi jarul ñu yàkkamti di signé loolu loolu laa xalaatoon sama point de vue la woon te nag wax dëgg yàlla am na ñu bare ñoo xam ne àndoon nañ ci ak man ba nga xam ne sax contrat bi soo seetee ñu ngi ko signé 2012. et li may wax nii c'est entre 2009 et 2010 kon nag am na loo xam ne lii yenn woon na maanaa ci loolu loolu laa ci xam ñu laaj ma nag ndax yow coow lii ak yëpp est-ce que Sénégal ñàkk na ci dara ma ne loolu moo jar a xool loolu mooy coow li mais pour nga xam ko ñun dañu nekk ñoo xam ne ñii du ñu wax loo xam ne lii xamuñu ko pour nga xam ko il faut nga am dossier bi yëpp te dossier bi yëpp kenn amu ko ah am nañu ko am ñi ko am nag ñoo ko war a leeral mooy. présidence de la république moom moo am moyen aujourd'hui am dossier moo tax man euh, li ñuy def nii di woon nit ñi di leen laaj man contre ma ko parce que au moins dina tax nit ñi xam li ñu am am joxe ay information permettre président mu dajale information yi mu war a dajale bu ko defee ñu xam bu ñu ko xamee rek dinañu ko nat ñu laaj ma nag lan laa xalaat ci reportage boobu ngay gis BBC reportage moom eh, eh, xaalis bi ñu ci tudd rek dafay miir loo nit mm. waaw ci ci koo xam ne kii yow yaa ngi toog Sénégal ni ñu sonne ñu ciy tudd xaalis boobu naan diw am na ko ceeg diw amu ko ci surtout que dafa am frère bu ci boo xam ne tudd nañ ko ci ak lu mu mun def ak lu mu deful parce que aussi nit accusation doyul il faut ñu dem ba ca cappaandaw ga ba xam am ay preuve ñun du ñu nekk ñoo xam ne dañuy accuser ay nit donc loolu dafa war a leer parce que boo accuser nit ba pare mu dem ba ci biir gisoo dara da ngay am gàcce donc ñun du ñu defee noonu donc loolu yëpp jaxasoo boobu yëpp ak Sénégal ni ñu koy tuddee parce que fi mu ne nii Sénégal foo dem ñu ne la seen pétrole bi man lu ma toog maa ngi ci àll bi bés bu ne foo toll ñu ne waaw seen pétrole bi naka la demee lii naka la loolu image boobu baaxul donc loolu c'est extrêmement important maintenant nag ñaareelu observation bi mu am mooy Sénégal dañu toll ci saison 2 saison 2 mooy réew moo xam ne dafa am réewu réewu pétrole la ak gaz comme Arabie Saoudite comme Qatar dëkk yooyu ngeen di dégg ñu naan dañu am alal ba muy ball Sénégal ci la bokk léegi léegi nag réew bu tolloo noonu alal ji dañuy xool nuñ koy doxalee pour mu bañ a am problème ñi fi nekk nag ak ñi opposition ñëpp laa wax man amul xaaj ak seen alal moom bu tolloo noonu ci réew nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour def seen suñu développement dañ ko war a jaarale ci yoon yoo xam ne yi ñëpp dañ koy xam loolu moo tax nag ñu ne ma léegi lan nga xalaat man leen pour ñu am jàmm am dal Sénégal il faut ñu jël ay dogal yu leer ci dogal yooyu am na ñett yoo xam ne yi am na yeneen sax waxoon naa ko avant waxoon naa ne cos pétrogaz nga xam ne moom mooy xool ci wàllu technique naka la ñuy utiliser gaz bi ñu boole ci opposition ak société civile loolu dafa mel ni nangu nañ ko parce que loolu maa ko waxoon 2015. ñaareel bi aussi xale yi nga xam ne yi ñooy ndaw yi ñu jël benn partie ci pétrole bi réserver leen ko moom la ñuy wax génération future loolu dafa ànd nañ ci léegi ñett yi nga xam ne ñun moom mooy suñu combat actuellement benn bi mooy dañu war a woo ñëpp ñu nga xam ne am nañu contrat ci pétrole beeg gaz bi ñu toog ñu vérifier conditions yi ñu ko amee boobu ak enquête yëpp dinañu xam conditions yi ñu ko amee ba pare coow yi ñuy wax yëpp ñu leeral ko ñu leeral ko ba pare ñu renégocier bu dee am na loo xam ne lii daf ci jéggu woon dayoo parce que mën nga si ak nit contrat nga dem ba ci biir mu am ci loo xam ne lii yaakaaroon na dina ko ci am dafay am benn bouleversement wax mun ngeen toogaat nga ne ko waaye saa yow am daa ëpp nañu toog waxtaanat léegi bàyyi lii defal lii loolu c'est possible surtout que pétrole bi génnagul bu ñu xaaree ba ba bi génn co boobu day gën a compliqué c'est léegi la coow li waaw mu ngi mel ni rek nga nga ñu ñëpp ñu bokk benn doom mu juddu ah ñuy jéem a xeex léegi njëriñ bi mu nar a am ëllëg ci ngénte li coow li si ñu toll nii mooy ci ngénte li ci coow li la ñu toll ci ngénte li ñu bugg xuloo ah parce que condition yi mu juddoo ku ne liñ ci contribuer kenn xamu ko léegi dañ ko war a leeral léegi bu ñu toogee renégocier li kooku moom mënul ñàkk bu ñu ko defee ba pare mu leer. comme ça ñëpp xam li xew parce que li ñëpp bokk rek comme ni ko président Sonko di waxee lu ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu dafa war a leer ñaareel bi léegi dispositif bi ñu am comme nee nañu ci constitution bi pétrole bee gaz bi sénégalais yi ñoo ko moom il faut mu am benn autorité boo xam ne ku maandu la ku farul fenn boo xam ne day am une haute autorité moom mooy def régulation bi dafay am nag droit d'information fu ko neex mën na dugg xam lu xew mu ne laa lii de normal lii chaque année mu def rapport ñu xam ne wàllu pétrole bi fii la toll lii la ñu am ci ci bloc lii lañ ko jox kii lañ ko jox nii lañ ko ko joxe. bu ko defee ñëpp seen xel dal parce que fi mu ne nii xel yi dañoo téye rek xel yi nag bu téye il faut nga dalal ko. parce que boo ko dalalul ku nekk da ngay wax lu la neex xam nga fii moom léegi léegi ñëpp dañuy wax waxu pétrole. ñëpp ku nekk ngi expliquer ku ci xam ak ku ci xamul ak mais parce que lu leer parce que bokk ci coow li xam fooy teg sa tànk moo ko gën waaw kon nag ñun loolu dafa dafa war a leer kooku mooy deuxième mesure boo xam ne bëgg nañu ko dernière bi mooy que dogal bi mooy assemblée nationale moo fi nekk ak nu mu mun a mel moo fi nekk moom mooy représenter peuple bi donc bu ñu demee ba signer pétrole contrat lu toll noonu pour nga dëggal ko. président moo koy def actuellement mais mun nañ ko jox assemblée nationale. ministre bi ñëw ne waa ñun de signé nañu lii la ñu signé daal di exposé ñëpp xam ko ñu teg ko ci télévision bi ñëpp xam ne ah am na pétrole am na benn euh, benn bloc day bu nekk fële am na potentiel tant de milliards lii lay coûte et cetera bu ko defee ñëpp xam ko. Assemblée nationale voté benn loi ñu ratifié ko comme ni ñuy defee convention internationale yi bu ñu signé ak benn réew. bu ko defee yëf yi leer jàmm ne ñooy parce que dëkk bu amul jàmm dëkk bu amul sérénité boo amee pétrolo o coow rek ngay indi donc loolu pour éviter ko loolu moom moo taxoon ñun ñu def ko moo taxoon ñu kontaan lool ci li ñu boole ci ñi ñu convoqué pour ñu wax li ñu xalaat moo taxoon tamit ñu am obligation pour ñëw rendre leen compte ngeen xam ñun suñu suñu objectif mooy sénégalais yi dañ leen war a expliquer ñu comprendre bu ñu comprendre rek ñoom xam nañu li ñuy def kon nag loolu laa amoon lu may wax di leen gërëm di leen sant di di mettre à votre disposition jërëjëf.